mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo le minute de l'info Ousin ngeen ci àndal ñu war a waxtaane benn mbir mbiri Lionel Messi dañu leen di wax tey Messi lan moo tax mu jóge Barcelone problème bi fan la jóge bonne année la dooree xaalis lan moo ko indi ndax xaalis la wala du xaalis som biñ ko doon fay détail yépp lañ leen bëgg jox ci bàkk ba jógee ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakar Net daara du la rëcc ci réew mi Euh, Messi 2017 euh, daf doon prolongé li nga xamante ni moom mooy contrat am euh, yokk si 4 ans ndax mi ngi woon fin contrat 2017 bi mu yokkee 4 ans li ñu demee ba 2019 ci contrat boobu noonu ñi ngi ko doon ñi ngi ko doon fay 71 millions d'euros li nga xamante moom mooy Messi ci 4 ans yi nga xamante daf ko daf ko bi ñu demee ba 2019 contrat bi daal di fuité maanaam daal di génn ci presse bi presse bi daal di si jot presse catalane bi jot si indi coow lu bëri presse bi nag nii euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, président bi di euh, Barnoma moom dafay yàq club bi moom dafay dafa bëgg a yóbbu club bi à la faillite quoi maanaam daf ko bëgg daaneel ndax xaalis bi toll noonu mu war ko fay Messi mu jur coow lu bëree bëri léegi moom président bi moom am pression nag bi mu amee pression moom. parce que d'ailleurs dañ ko accusé du 75 millions yi dafa bëri day day rey équipe bi ñaareel bi masse bi dafa bëri Euh, transfert yi nga xamante ni jot na ko amul ko njëriñ amulul sax équipe bi njëriñ muy ki nga xamante ni mooy Coutinho ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Ousmane démbale li ñu leen jëndee dafa bari li ñu doon fay li ñu doon fay dafa bari te amul noonu benn rentabilité. alors ba léegi euh, Messi coow lu bari coow li nag bi mu baree Messi nag xawoon ci am sax kersa tuuti ah donc parce que même période boobu noonu. ki nga xamante ni moom mooy Neymar moo ëppale woon salaire presque ci àddina bi ci jour yi 35 millions d'euros la Neymar te Messi moo ko ko alors coow laa ngi noonu bi mu baree bari Messi bi ñu bi ñu baree li nga xamante ni moom mooy 2020 entre 2020 2021 surtout 2020 bi ci la président bi daal di démissionné ndax pression bu metti bi nga xamante ni euh, euh, club bi mi ngi ko teg ak yenn dirigeant yi euh, nga xamante ni moom mooy Barça ba ci supporters yi sax presse bi également mu daal di mu daal di démissionné bi mu démissionné ñu dem ba maanaam février 2021 la ko président euh, ki nga xamante ni mooy Laporte daal di remplacer Laporte nag bi mu doon def campagne am de temps en temps daf doon wax dina def lu mu mën ba renouveler contrat Messi bi ndax mi ngi doon mi nekkoon ci à terme dina def lu mu mën ba wàññi euh, salaire yi mais dina def également lu mu mën ba euh, li nga xamante ni moom mooy Messi mën a toogaat Barcelone. alors si discussion yooyu ñu nekk nag juste Messi daal di dem fi nga xamante ni moom mooy Copa bi si mois de juin bi. ndax COPA bi mi ngi euh, démarré woon ci 30 juin bi jeex presque ay diggante 11 12 13 bi ñu nee ba le 14 nag le 14 13 euh, bi ñu nee ba le 4 Messi daal di ñëw di négocier ak ki nga xamante ni moom mooy Barcelone et d'ailleurs Messi. ñu bëri dañu jàppoon ne dafa gourmand sax ndax li tax ñu ko doon fay loolu mu bàyyi ñëpp si biir ak détail yooyu noonu dafa xawoon métti si métti si espagnol yi surtout euh, Barcelone yi rawatina presse bi alors Messi nag bi muy ñëw di négocier contrat Messi d'accord wàññi wàññi xaalis bi ñu ko doon fay maanaam cent onze millions d'euros yi comme contrat am jeex na dafa renouveler waat Messi d'accord na wàññi cinquante pour cent ci salaire maanaam dafay xaw a wàccaat ba tolloog Neymar trente cinq ba trente six millions d'euros la Messi war a fayee ko waat. alors ñu nekk di négocier bi ñu nekk di négocier nag euh, problème bi beneen problème juddu ci kaw li tax mu juddu ci kaw mooy xam ngeen ni xam ngeen nii li nga xamante ni moom mooy euh, Liga bi ñoom. Euh, liga bi organisation bi ñoom toujours dañu fa am benn somme boo xamante ne dañ koy fa lañ koy yemale maanaam yow fa lay yem doo ko passé boo war a fay say jour masse salariale bi nag gis ñu gis ni Barcelone daf ko dépassé lu baree bari dépa dem na dépassé na ko ñu ngi toll si presque quatre vingt quinze pour cent ci ah, cinq pour cent rek moo tax ñu dépassé loolu noonu te Messi bu renouveler contrat am dañu koy dépassé waat di dem léegi nag benn ñoom dañuy wàññi masse bi ñaareel wala ñu bàyyi Messi dem. léegi bu ñu wàññee masse salariale bi donte am na joueurs yoo xamante ne wàññi nañ seen masse seen salaire bi Covid bi ñëwee joueurs yu bëree bëri si cadre yi Barcelone ñu wàññ seen salaire parce que voilà c' était en fait c' était obligatoire joueurs yu bëri si àddina bi dañuy wàññi seen salaire. alors benn joueurs yooyu mënuñu wàññiwaat seen salaire Messi wàññi na 50 pour cent te 50 pour cent taxul mu doy taxul mu mu doy parce que taxul ñu wàcc li nga xamante ni moom lañ leen limité donc problème baa ngi noonu Barça ils ils étaient obligés ñu bàyyi Messi dem wala sinon ñu jaay ay titulaires yu baree bari maanaam ay titulaires ñu baree bari ñu jaay leen te voilà day compliqué si ñoom. donc ak Messi aussi âge bi mu am donc pression baa ngi noonu dem ba dem ba ñoom àttanituñ ko ñu daal di bàyyi Messi mu dem et d'ailleurs sax ci pré euh, ci euh, point de presse bi conférence de presse bi d'ailleurs wax na ko nee na wàññi na wàññi na si euh, si salaire am lu toll noonu quoi presque mooy li ma wax léegi cinquante pour cent yi ki nga xamante ni moom mooy président Paris daal di sauté ci occasion bi li tax ma wax ko ndax moom da doon faral def ay déclaration ba promettre sax ni ah, supporters yi dinaa leen indil Messi et d'ailleurs ki nga xamante ni moom mooy Neymar joué na ci lu bari ndax Neymar ku ne xam na ni tout le temps dafa doon def ay déclaration ni moom bëgg na rêve am ah, bëgg na balaa muy jugee Paris Messi fekk ko fa ak yenn détails yu bëri. alors mu dem Paris Paris nag daal di koy recruter li ko fay 37 millions d'euros bi mu ah, di ko fay 37 millions d'euros 37 millions d'euros yi nag 15 millions bonus. bonus 15 euh, millions d'euros yi mooy bonus transfert par exemple boo signé contrat day am bonus mu nekk presque 50 millions d'euros boo ko calculer presque prime de signature papa ji moom mooy manager bi 15 millions d'euros lañ ko fay si prime de signature parce que boo signé contrat ki ko signé dafay am prime donc boo leen ko calculer si euh, li nga xamante ni loolu la fa signé signé na fa 3 ans mais un an bi option la. option d'achat la mais un an boobu noonu maanaam bu ñu fa teggee bu fubalee ñaari at benn at bi bu ko neexee mën na renouveler contrat bu ko neexee mën na arrêter en fait dina am benn liberté wu discuter ci si si si année boobu noonu comme quoi que tamit président bi tamit am na droit tamit ci benn année boobu mu daal di discuter ak moom. alors mbir maa ngi noonu ah mbir maa ngi noonu xaalis bu baree bari nag la Messi di gagné donc cent quinze millions d'euros lay gagné at bu jot fële ca Paris Saint-Germain euh, mais Messi tamit. fi ñu koy accuser lu baree bari mooy dafa il était très très très gourmand maanaam dafa suqale woon trop ndax euh, voilà li mu doon fayee ko dafa bari donc loolu moo indi coow li yëpp te Barça dem ba mënatu ko téye Messi mu dem moom tamit munul wàcc salaire mënul wàññi salaire am lu baree bari donc parce que comprendre ngeen li ñu bëgg a wax lii moo nekkoon détail yu Messi ak euh, Barcelone Messi ak Paris Saint-Germain wéy leen di abonné seen d'information bi di Dakar Net daara ju leen